toog toggal sa ndey toogal toogal du saaga du saaga Jama daa saaga Jama Jama Jama moo guys hi everyone you know the vibe sama gars yi déggee naa leen how is today I hope is good yaakaar naa yéen si jàmm bu baax baax man maa ngi si jaam maa salaam yéen j'espère que yéen ngi si jaam yéen ngi si salaam yàlla yàlla dafa sutura xéwal ak xaalis bu bëree bëri sama gars yi Mia Guissé ak Jaman dañoo génnee benn son son bi nag mi ngi def mi ngi toj TikTok bi ñi ñi ngi naan si son bi Mia ak Jaman dañoo saaga ñi ñi ngi naan saaga ñi ñi ngi naan langage codé la man Fallou man xaama ñëw sànni si sama gré de sel ma wax leen ba ay saaga la wala du ay saaga man li ma ko jàpp boog sama gars yi balaa vidéo di commencé merci d'aimer la vidéo abonnez-vous bu leen fàtte yéen zéro respect sama promo code 21F la saa boo di nga am bonus 1 million nee bi naa ko def si commentaire yi léegi sama gars dañuy jiitu si premier extrait bi nga xamante ni Mia Guissé woon na ko sur sur son compte TikTok après ñu dem ci concert bi Jaman ak Mia ñu xool la lañ def let's go in one let's go ah. Mia ah. Mia moom daa bëgg aaw je sais que seetlu ngeen loolu si son moom waali bi nee na ay wuy ah Mia suñu artiste bi dañ lay laaj la moo tax nga bëgg ah Mia waay ñu continuer Mia nee na à part seek si rafet ba mel ni per bu yàlla seex ba sàndi muy lëmbe xamaloo ma dara maam per bu yàlla sax ba sàndi rek miyaa na moom à part loolu xamaloo ko dara miyaa nag bu yàlla sax ba sàndi loolu garaaw na jamaan ne ko à part di ba noppi mais ti à jantal ba yor tuuti xajam xamaloo ma dara loolu la wax ñu ngi continuer à part yaa tontu ko fii ne ko à part mën à mat à part ready à part fresh à part réew rafet bëri feeling xamaloo ma dara yee Mia lii la njëkkoon dugal ci seen TikTok am bi di def buzz sur TikTok gars yi di ko challenge Mia ne non

Mia nee na waaye takk ma maa yëngal say jaani biir jaani biir takk ma maa yëngal say jaani biir jamaan lu ñu ko tontu fii. toggal sanday toggal toggal du saaga du saaga toggal toggal toggal sanday loolu la wax jamaa daa saaga jamaa jamaa jamaa moo saaga jamaa moo saaga mais gars yi leen saagawul jamaa li ma fi leer na saaga euh, ñu dégluwaat waaye jamaa fii moo ko tey saaga <laughs> daa saaga waay lii du saaga <laughs> negainen saagumle peut-être tamit moom moo ko moom moo ko waxee nii soo grand jama yaa ko waxee nii bëgg ñu yaakaar ni dangaa saago alors que saago ñun ngay nax ñun xam nañu saago ñun doo saaga ñun xam nañ loolu doo saaga xam nañu saago ñun ngay nax bëgg ñun wax si rek mais wax nañ si waaye may tooyal sëram loolu loolu la gars yi wax que ni jamaam loolu la wax mais man fii li ma du loolu. toggal sanday ceebu mbaari kër gi riir. kër gi riir. waaye may tooyal sëram loolu la ko wax. simaak ndox danga may gis daal miir. loo eh, jabar war naa wax Mia dafa dafa neex <laughs> waaye ku waxul da ngaa soxor nag ci commentaire yi Mia dafa dafa booy bi dafa eh

waaye maay tegal sa mais gars yi nee nañ saagawu léegi dañ jàpp ne kii jamaan saagawu la ñu jàpp ne waaye maay tooyal sëram la wax mais ci concert bi fii moom waaye maay daa daa saaga ah man bokk li ma jàpp ci concert bi li mu wax daa saaga ci li ma jàpp bokk waaye nee nañ saagawul ci son bi xaamu woo jamaan kon ma laaj ko xaamu woo ko eh, sama kër ji jamaan mi Sénégal sama ji fii la jamaa saagul sama gars yi tooyal seeram la wax ci relax bi waaye ci concert bi moom jamaa moom ah waaye man teegal sa